l'observateur ànd bi di bu Yewwi ak wallu la jàpp ne du sori ak xëccoo présidence assemblée nationale ca nag ci gis-gisu yéenekaay bu groupe Futurs Médias tas ga mu ngi xeeñ la ko waral bokk na ci Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye mi lànkategaat ci suuf nekkinam nekk mbër ci yootug toogu président assemblée nationale ak maître Abdoulaye Wade ci wet geneen gi tànnal waa wàllu Lamine Thiam ne seen ak mbër ci source a Ahmed Aïdara di ci joxe leeral ci li waral mu doon mbër ak wërsëg yamu ci am ngir jële ca ndam bokk na ca mu ne gën caa gàtt ñeenti député benn bokk yaakaar guddik woteel di ay député yu parti socialiste waatal nanu ko ko mu ne conférence des leaders nag ginnaaw bi nu tayee ci ñàkk koo mun a yey ngir mu tegaat yëfi ci suuf moom Ahmed Aïdara si lañu waat ndaje seen biir alxamis tey jii ngir yeneen ni diisoo le vrai journal dafa laaj na yeewi ndax dina mucc cib kalaate cib tasaaroo ak Ousmane Sonko mi ñàkk ànd cib ndajalem ndombay tànk Barthélémy Dias mi taxaw ngir boole ndombay meeru Ndakaaru ak nekkaale député ci assemblée nationale naka noonu it Ahmed Aïdara mi taxawee ne Barthélémy Dias Thierno Bocoum moom la mu xelal opposition opposition bi ci la tribune mooy ñu liggéey ci lu leen di jubóole ci benn candidat ngir présidence assemblée nationale ci le quotidien Thierno Bocoum di dànkaafu nag député yi ne assemblée warta doon am séddoom ngato Birahim Seck moom yeewi askan la jàpp ne dinañu war seen programme bopp ndax taxawal groupe parlementaire yu bari ci assemblée mooy yokki dépense rek ci lu safaanoog lañ daa dig askan ci wàllu sakkanal seen koppar ak yeneen la tribune ne député yi kay la ñu nas mooy am alal ci ñaq ak askan wi groupe parlementaire yu takku yu dépense yi neen la le ñu fas yéene waajal ñoom député yi ndax yëgle nañu xaar juróom-benni groupe parlementaire muy ñaari wàll yëpp nag di nguur gi di opposition bi ci gàttal yéenekaay bi ne seeraas la ñu fas yéene soppali penc ma ak ngëneel ak avantage yi nga xamante ni membre bureau ya ak président groupe parlementaire ya dañ ko gàddu PDS moom am lu ko doy soxla ak ëllëgëm gi yox yox yi ci gis-gisu laas ay démission yu takarnaase ñàkkum leadership ak njiit lu nu gàddaay loo donte kenn ci ñoom Bassirou Ndiaye ci yéenekaay bi ma nga ci naan ci lu yàggatul Karim Wade dina ñibbi si Sénégal ci dinañ psychiatre loolu nag bokkoon ci ñoom ca Bademb muy docteur Cheikh Dieng mel ni ku ko gëmul ndax ci source a ma nga cay mel ni kuy njortal PDS ab baara yu googu Macky ndax ma nga ca naan moom la mu gëm mooy Macky Sall bawoo ci nguur gi 2024 bokkul ci ñiy baara yëgoo ngir muñal ko 2029 professeur Ibou Sané politologue moom ci yéenekaay bi di source a ba tey la mu gis ak tolluwaay PDS mooy maître Abdoulaye Wade doom ja Karim Wade rek ko ñor képp ku fa nekkit toog doon militant rek wala mott ca su Karim Wade amoon amnistie ci direct news Mamadou Lamine Mansali moom ma ngay dal bu baax ci kaw Mamadou Lamine Diallo la mu yàq nguur geeg Macky Sall mu ne ay fenti kese la fàttali na ko fi mu ne saraxu gum fa doon saraxu yi jamono poste ministre des finances président Macky Sall Mamadou Lamine Mansali ne amul jotog wax ju sew ndax la mu bëggal Sénégal di yokkute gu sax àndul ak waxi picc l'info ne taxaw na ngir doon bàyyi faalu Macky Sall mi mu gis ne ak léegi soppi na bu a la su wër boppam ci gàttal ci xiidi miini la ne ak coowal troisième mandat 2024 noonu bennoo gi mu bëgg benn le beneen kàngam ci wàllu politique gu ci xiini miini Xalifa Ababacar Sall enquête ñëw ci ëllëgu politique ne 2024 moywul mooy doon sànni tàccoom ngir doon fi président diggante ak 2022 jàpp ne socialiste bi mu doon moom Xalifa Sall ñàkk na fi terrain ci lu yaatu waaye nag taxawaayam ci wote député yi nu génn yéegalaat na cote ba awtis ci yéene yi génnuk ñàkk nañu kàngam ku leen daan tegtal waa grand place ne muy président Sall di soxna Aminata Touré ñoom ñëpp ànd maasé delloo ko njukkal tis weneen di bi ci libération ak soxna su woowe Mami Doura Diallo faatu ca centre de santé bu Kédougou ci anam yu métti ca yéeme faatu mook doom ja yépp ci jamono yu mu doon mucc ni ñu ko waxee ak hémorragie ak yoo xam ne ma ne su ko wax ci rajo tis boo nag am ñu ko doon nëpp nëppal waaye it am ko dem dëy ko procureur Baye Thiam yéene kaay bi ne ci la sàkku ci commandant gendarmerie ba xaaju guddi mu dem ca centre de santé ba libération ne muy gynécologue ba di Léon Mbada di anesthésiste bi Abdou Aziz Dioum naka noonu infirmier ba Bakary Diakhaté ñoom ñëpp ñu ngi ci garde à